gars yi ñu bégal leen Vinicius mu blessé ci guddi gi loole tamit daanaka dana yokk tableau boo xam ne blessure yu bëree bari ca Real Madrid cadre nag la ci bile équipe Sénégal ci kanam tuuti dana football gaa yi ngeen ñaanal équipe bi Messi mi ngi ci biir xibaar yi lépp bu ñu ko tënkee dana nekk xibaar yoo xam ni yu mucc ayib la ginnaaw. ma nga noonu kontaan nañ ci abonnement yi nga xam ne yéen a ngi koy daabar ñi ak suñu vidéo maximum de partage Vinicius Junior mi génn ci ab euh, blessure boo xam ne daanaka. blessure boobu mi ngi ko dal bi ñu futbalee lu tollu ci ñaar fukki minutes ak juróom-benn séngam moom moomee di gone gi nag nga xam ni commencé woon na boobee match mu nekk match boo xam ne bu naroon a am solo la ci moom waaye nag blessé ak football ñoom ñaar kenn mënu leen a euh, maanaam euh, xajat kon génn na ca match boobee xibaar boobee danañ leen ko toppal lépp lu ci mën di am ci euh, li nga xam ne mooy jamono ji mu war a toog ak nu mu demee. Sénégal ci kanam tuuti tuuti dana football ak Japon match boobee ngeen dolli ci ñaan rek bu ko defee gone yi mën a ñëw taxawaay boo xam ni ñu ngi koy bëgg ci ñoom ñu am ko ci solo jërul ñuy leen di yëpp ndax ñoom ay jàmbaarlan te it xam nan li leen war ci troisième match boo xam ne troisième match la bu am solo ci wàllu football beneen information boo xam ne sax danañ ci dikk léegi match boobee nag ñiy laaj nan moo koy teg RTS moo koy teg soo ko amul ci li nga xam ne daanaka euh, moo nekk ci sa télévision da ngay dem fële eh, ca Facebook ba nga am ko kii lee di eh, Brésil tamit match bi mu doon football ak eh, Colombie am na yeneen baax xar baax yu ci am mooy ki nga xam ne mooy jaas papam bi nga xam ne génnoon na prison waaye daa teewoon match ba moom it bi mu dugalee doublé ngeen gis maanaam taxawaay ba nga xam ne am na ko ak mbégte mi nga xam ni am na ci diggante baay ak doom cofeel gu am am solo la di nekk image yoo xam ne tamit image la yoo xam ne yu dawa daw yaram la bu ngeen dee topp information yi nga xam ni moo nekk ci kii di jaas ak papam ak jafe-jafe yi nga xam ne nekkoon na ak mbégte mi mu xëy-xëy euh, ci lu une semaine daal di ci tab bi Argentine nërmelu na Lionel André Messi ci digganteem ak Uruguay mi nga xam ne moo leen tëcci fekk leen seenub dëkk ñaari bal ci dara lañ leen soos ci soos boo xam ne daanaka saf-saf pakkaani la def kon Messi